leen bu baax jaajëfal leen ami internet suñu li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy jo rek Lat Diop mi nga xamante rek dafa invité woon ndaw Géejawaay yi nag dañ ko daal di rek yuuxoo ba mujjul jël euh, kaddu mbir mu nu mel nag ak sonkorisation bu métti rek la fa daal dundee maam naam sax li nga xamante ne moom mooy yooyu lee ndaw mayuñ ko benn yoon rek fu mu jëlee kaddoom dañu ko yuuxu ba noppi rek di ko sonkoriser moom Lat Diop mu mel ni rek à fois nag bu invité ñii di ndaw ñi rek dañu koy euh, daal di yuuxoo bu baax keneen ki nga ñu yuuxoowaat nekkul kenn rek ku dul kii di Thierno

daldi rek sonkorisé yuuxu ko ba mu jul sax jël euh, parole ngir wax li nga xamante ne rek moom mooy euh, programme am ci élection présidentielle yi ñu fàttali leen nag mbir mu nu mel kii di laaj Diop nag daldi dina koy dund foofu ca euh, Géejawaay ginnaaw ndog bu am solo bi nga xamante ne doon na ko invité ndaw Géejawaay nag dañu ko yuuxoo ba noppi rek di ko sonkorisé du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf. gis ngeen waa groupe yooyu noonu groupe de presse yooyu ngeen di tudd surtout E-Media yéen nga wax sen TV ak ay RFM mais gis ngeen e xam ngeen lan lañuy lijeenti deuxième assalamu alaykum wa rahmatullah bak patrodi ñi ngi nuyu ñep di len ziar di len bayilo xel euh, groupe groupe bi ñuy wax e moy groupe ñom Mamadou Ibra bi ak euh, ñom DJ bob sok euh, Alassane Samba Diop fim tolni ñi ngi ci campagne de diabolisation bu metté metté métti. ñi ngi campagnal Amadou Ba waaye di diaboliser Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñi ngi sot ñi ngi sotle Amadou Ba xaw ma seen groupe bi Amadou Ba moo ko moom xaw ma daal waaye daal moom maa ngi leen ciy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax ndax fi mu toll nii am na lu bon loo xam ne ñi ngi nekk nii di ko def te loolu bu wéyee jour vote ya mm, joxem résultat ya mën nañ caa bañ a maandu dama leen a seetlu bu dee ci programme Pastef jël na ci ñaari point yu sensible di ko fowe di ci diaboliser Pastef ak di leen ci tuumaal ngir bëgg nit ñi ragal leen mooy affaire monnaie bi ak affaire euh, vice président bi ñaari post yooyu gis naa ne ñoom ñu ngi koy manipuler di ci liggéey liggéey bu saytaane beneen bi mooy ci discours Bachir Diomaye fay ak Sonko nee nañ au lieu que Sonko focus ci programme ñoom seen discours daal waa Pastef dañ koo tenir ci tuumaal Amadou Ba loolu waa groupe E-Media ñoom ñoo ko wax carrément mënuñ ko weddi maa ngeeg nii vidéo yi ak ak seeni ojo kant campagne de diabolisation bi ñu nekk nag démb Bassirou Diomaye fay bi mu gisee mbooloo mi génn Ziguinchor mu ne yéen waa Ziguinchor ngeen mérité ngeen mm, ñu def Ziguinchor capital du Sénégal ñu jël kàddu googu rek bëgg ko yóbbu feneen te loolu Bassirou wax nekkul ci seen programme loolu nekkul ci programme PASTEF programme PASTEF déplacer capital du Sénégal bokku ci Pastef nag mën nañ dem ba toog ci réew mi déplacer capital bi yóbbu ko Thiès wala ñu yóbbu ko Kaffrine wala feneen waaye loolu bokkul ci seen programme Bachir démb dafa gis mbooloo mi mu ne dëkk bu mel nii mérité nañ amee capital du Sénégal ñoom ñu jël kàddu googu maanaam campagne de diabolisation ak manipulation bi ñu nekk nii yéen patriote bu ngeen ci bàyyiwul xel jour vote ba ñoom groupe boobu bu ñu leen bàyyiwul xel dinañ joxe résultat yoo xam ne du baax nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax teel leen a dànkaafu man nak lima xam maa ngi koy wax ndax xamna fekk na alternance ci Sénégal te xamna na alternance likoy def média ci la bok 2000 bi ablay Wade di daaneel Abdou Diouf PS ak doole ji ñu yoroon yëpp bu len ablay Wade mané daaneel dafa fekk ñu amone presse bu melne wolf sid Lamine Niasse taxaw ci taxaway bu mat seuk ak Babacar Touré bu Sud FM 2012 yéen ñëpp fekk ngeen presse bi opération wër nomba bi def ànd ko Youssou ak RFM daaneel ablay Wade lolu presse kesse mo am doole jooju. bu ngeen sàggane nak presse bi dinañ foqati seen ndam yeen wa Pastef immédiat li ñu nek nañ ko tek ci suuf Mamadou Ibra dafa far ci coalition bu Amadou bala bok lolu ñun ñep xam nañ ko nangul nañ ko ko nak waye groupe de presse am duñ nang muy manipuler sénégalais yi li nak na dak bala ñu àgg ca jour vote ba ñun jamm lañu bëgg waye duñ nangu kenn di falsifier sunu résultat duñ nangu kenn di fi def électoral wala ngay Euh, détourner sunuy vote loolu duñ ko nangu li xewoon 2019 taxawaayu RFM ak RFI France 24 gisoon nañ ko loolu la ñuy bañ mu dalaat ñu gis ngeen waa groupe yooyu noonu groupe de presse yooyu ngeen di tudd surtout E-Media a ngi wax seen TV ak ay RFM mais gis ngeen e xam ngeen lan la ñuy lijjanti deuxième tour la ñuy lijjanti ñoom leer na leen nañu ne élection yi bu soobee yàlla Pastef da koy gagné dès premier tour avec pour cent comme ni ko Ousmane waxee barki démb wala 65 pour cent. loolu ñoom ñëpp xam nañ ko léegi ñoom li ñuy lijjanti mooy ab deuxième tour ab deuxième tour la ñuy lijjanti gars yi maa ngi leen di loo xel saa yu résultat yi génn na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax képp koo xam ne bureau de vote bi ngay voté mën nga photo PV yi nga envoyé ko ci réseaux sociaux yi def ko boo xaaree sax ba côté minu yooyu dina fekk centre de vote bi yëpp pare ci ci weeru koor la nekk kenn du kenn du teel a tëdd. boo mënee xaar ba minuit di nga fekk euh, bureau de vote yëpp dinañ pare ba affiché seeni résultat nga photo PV yi non bul bul vocal naan nombre bi nangam la loolu dafa cuune loolu dafa cuune boo mënee photo PV yi loolu mooy loo du document bu officiel mi ngi noonu boo xam ne kenn mënu ko falsifier du E-Media du RFM du RTS du dara PV boobu noonu mooy dem Sénat mooy dem SEDA mooy dem DG e, mooy dem Cour des comptes xom nu ñu koy waxee Cour d'appel mooy dem fépp mooy dem ba conseil constitutionnel loolu lañuy ñuy ku mën a photo PV bureau de vote bi nga vo bi nga voté photol PV yi mooy procès verbal bi buñ paree dañ koy taf dañ koy affiché ci buntu bureau bi wala bu centre bi yëpp pare ñu taf lépp ci buntu centre bi boobaa photo ko nga partagé ko foo ko mën a partagé boobaa amul benn lii buñ ko defoon ñun patriote yëpp rek sàcc dootu mën a am ci élection bi sàcc du mën a am. bul vocal naan bureau bi nangam ñu voté nangam moo gagné déedéet fotol PV bi loolu moo gën a officiel loolu moo gën a moo gën a moo gën a wér bu ngeen ko mënee def ngeen def noonu gars yi journaliste yi ab ab ab kii la ñuy lijjanti ab deuxième tour la ñuy lijjanti te xam nañ ne mënul nekk léegi nag opération fatt pep bi ñu war a def mooy loolu photo PV yi tas ko ci réseaux sociaux yi ba ñoom duñu am fenn fuñ jaar li TFM ak RFM ak kii RFI defoon 2019 war naa mën a ñàkk ñu toog ba 22h ñu génneel ñu ay résultats yu garaaw te Amadou Ba ku aay ci hold up électoral la laaj leen xalifa Sall waa taxawu Dakar 2017 élection législative yi ñu demoon ñoom dañ ne gagné nañ parcelle de mais dañoo xaar ba bi ñuy tëri loolu lañ jàpp dañoo xaar ba dañoo yeewu fajar rek ñu jox ñu yeneen résultats yu bees Amadou Ba ne gagné na parcelle Amadou Ba moom nag tey moo fi nekk journaliste yi nekk ci ginnaaw muy jéem a lijjanti ab deuxième tour wax naa leen ko. bu ko kenn may patriote bu nekk bureau de vote bi nga voté bu timis jotee demal nga voto fotol ñu PV bi affiché ko boo mënee photo centre de vote bi yëpp nga def ko affiché ko loolu minuit dina disponible